waa sama dem tiit nañu. heureusement ñu dem ñu dem. Papa foo jëm. Äh, Papa foo jëm. naan lay Sonatel barki Seexul Xadiim. Cheikh Mbër. Cheikh Mbër mi nga laajte ah non gisaguma ko waaw waaw

lui qui donnait les instructions, mon frère. Hein C'est lui qui donnait les instructions. Mais yéen boo leen occupé benn lieu war ngeen ko jógee. loolu la ko gagné ba pare. voilà du taw. barke Seexul Xadiim Cheikh bi mi ngi ràcc na kanam bu dama dole Thank you. ndànk fas bu papa foo jëm eh, papa foo jëm que nañ ko assumer rek man ñoo ko def que nañ ko assumer rek.